Babacar waaw ok ok kii bi Aïdara nee na oto bi ngi noonu UGB ngi noonu le premier ministre Ousmane Sonko est venu s'entretenir avec les étudiants mais itam visiter les travaux d'assainissement comme niñ ko annoncé fii nii ci UGB ngir euh, li nga xamante ni moo di seen condition de vie euh, gën a amélioré wu. donc euh, loolu moo ne woon euh, visitu euh, premier ministre Ousmane Sonko dans le cadre de li nga xamante ni moom le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lancé mu di la journée nationale setal sunu réew aujourd'hui le premier ministre Ousmane Sonko était à Saint-Louis il est toujours à Saint-Louis où il reste encore d'ailleurs dans l'après-midi dinañ am ay activités yu bëri yoo xamante ne allah dina am fii nii di fàttali ni rek journée nationale de nettoiement bi seetal sunu réew mi ngi am présentement partout ci réew mi euh, image yaa ngi circuler ci réseaux sociaux yi que ça soit de Ziguinchor à Saint-Louis euh, de Fatick à Bakel tout le monde est mobilisé notamment jeunesse bi ñu comme niñ ko defee fi nga xamante ne moom moo di UGB euh, di leen jox dig daje rek comme ni ma ko doon waxee balaa may fàtte di fàttali rek président Ousmane Sonko itam daf fi ñëwoon Euh, fi nga xamante ni moo di UGB itam ancien la fi mu am temps saafonte ak ñi nga xamante ni ñoom lay àndal euh, ñooy étudiants yi ñoo di ay kadem ñi mën nañ ko ay jarbaat ñi mën nañ ko sax ay doom mu délivrer message bu am solo bu jëm ci immigration clandestine bi et surtout mu insister que euh, le développement du pays doit se faire avec ces étudiants là et surtout avec sa jeunesse que la route de l'immigration n'est pas la solution et il faut vraiment inviter et mu inviter surtout la jeunesse à croire pays, à croire à ce changement, à cette révolution qu'ils ont qu'ils sont euh, en train de faire ici au Sénégal Afrique yëpp di ñu teg bët ah muy révolution boo xamante ni euh, patriotes yi jël nañ ko liggéey ci lu am solo patriotes yooyu tey ñoo nekk UGB ndax ci xeex bi UGB mus de des ginnaaw waaye itam étudiants yi mus ci des ci ginnaaw waaye di leen euh, fàttali ñoo ngi fii nga xamante ni moom moo di UGB daa mel ni président premier ministre day dem restaurant daa mel ni foog mu dem ci village am mi ngi noonu yombul village baa ngi noonu koo xamante ne daa miin UGB bu ñëwee UGB <laughs> bu ñëwee UGB comme en 2019 il faut que véritablement mu dem ba ci chambre bi nga xamante ne moom la nekkoon visiter le premier ministre di fàttali fii la jàngee c'est devenu un pèlerinage ici à UGB au-delà de l'aspect setal sunu réew Comment tu vas? Bien et toi? Koulkoul. Tu es aussi de l'île, non? Oui. Moi, je suis au nord. Moi, je suis au nord. mais hier je joue poli ah d'accord. man ma tëdd naa ko. man ko ban tëdd ban tëdd. comme je disais le premier ministre va effectuer un pèlerinage ici au village bi nga xamante ne fii la jàngee. premier ministre Ousmane Sonko à l'UGB dans son village village am a fii la nekkoon fii la jàngee moom la ñëw visiter si war a dem ba fi nga xamante ne moo di euh, chambre am la nekkoon ak a xam fii mi ngi demal boppam. La chambre et voici la photo. chambre sommes dans la chambre la chambre G7 du premier ministre Ousmane Sonko à l'époque étudiant ici à l'UGB mi ngi noonu di saafonteeg étudiants yi occupé chambre boobu tey. ah, ah. ñëwal ñëwal ñëwal nee yaa remplacé. le premier ministre euh, Ousmane Sonko fii. ah bon. ah ok. Ah, la mosquée était juste là oui oui. ak le kii médical. non médical. non non avant. amoon na benn fii à l'époque yow xam nga bi ñuy bi ñuy doog a ñëw. tout tout mu tout est mu nee na la chambre est petite <laughs> c'est un pèlerinage qui moo dikk fii donc vous êtes deux ici euh, trois Dans chaque poche. Dans chaque poche. Ici, trois, là-bas, trois. Ça vous ça C'est combiné. Mais au cher, l'université vient pour Apparemment, ben, on est beaucoup de là. on est deux. Là, vous avez le mois de la fille du soupe. Le deux mois de la mort. Le mois de la mort. On était deux. Il y a Adam Ndiaye, mon frère. Il est espagnol. dans les quatre ans day gardé la même femme mais fii dafa mënoon a sedd na. Ah, <laughs> waaw waaw waaw fii la sedd parce que le soleil ne touche pas quoi. Ah, le soleil ne touche pas mais il faisait maa ngi jóge naa ne chaque ah président kontaan nañu de tey boobu. ah mais man maa ngi kontaan c' est un peu d' émotion qu' on vient ici. devant les gens sortis de mes poches là je l' avais pris ici devant ah, la porte. en quatre vingt quatre vingt quinze. jël ko fii Non, non, c'était un t-shirt pour la Lacoste. Ah, c'était parce que c'est un uniforme de le ministre. Il est de gouvernement, oui. Ok, ça, très bien. En tout cas, bon courage. Ah, merci. Mi ngi noonu le pèlerinage effectué dans la chambre d'étudiants du Premier ministre Ousmane Sonko ici à l'UGB G7 la premier ministre Ousmane Sonko fekk fi jàmbaar yi ñoo fi nekk vous êtes euh, euh, en master. en master en master 1 français. moom mi moo occupé la chambre où était le premier ministre euh, Ousmane Sonko qui à chaque fois quand il vient à UGB effectue ce pèlerinage durant l'élection présidentielle de 2019 aussi durant la campagne jotoon na ñëw fii nii nga xamante ne aussi c'est devenu un lieu de pèlerinage mais aussi. lieu la boo xamante ne xale yi mën na ci inspiré wu que lépp fii la commencé et l'UGB est fier aujourd'hui de ce qu'est devenu le premier ministre Ousmane Sonko ça va bien. Vas-y. Merci beaucoup. ministre def na ce pèlerinage habituel fii nga xamante ne moom moo di euh, pèlerinage bi pèlerinage bi def na ko pèlerinage euh, pèlerinage bu PM di def euh, chaque année waaw jaajëf pèlerinage bi premier ministre def chambre G7 waaw chaque année bu fi ñëwee daanaka si le temps lui permet daf fi ñëw on se souvient de la campagne présidentielle de 2019 ñëwoon na fi visiter ko et en même temps aussi dem ci restaurant ba mu di un habitué des lieux et qui revient avec plaisir à chaque fois di leen euh, et je rappelle que c'était dans le cadre de la journée setal sunu réew euh, seetal suñu réew à Saint-Louis travaux euh, opération de nettoiement yi premier ministre Ousmane Sonko moo ko joxe euh, fii ni nga xamante ne moo di Ndar sur trois lieux voire quatre lieux même premier bi mi ngi ne woon ci plage euh, bu Chaumière fële ca Ndar après ñu dem Pikine ah Pikine mu sa xool situation travaux yi fa a am waaye mujjuta am Euh, mu di euh, station de pompage ak bassin de rétention bu fa waroon am euh, avec une valeur de soixante milliards depuis deux mille dix huit ñu jox ko dossier yi nan nan la ak naka la travail travaux yooyu noonu mën a jëlee autant de temps daanaka réaliser wuñ fa dara après dem na ginnaaw raay ci li nga situation bi nekk bi foofu parce que foofu cuvette la mais en même temps aussi napp la à chaque hivernage day am problème inondation premier ministre daal di jox euh, ndigal ki nga xamante ni moo di ministre de l' assainissement Cheikh Tidiane Dièye mu jël disposition yi de telle sorte que ñu mën a protéger population yi ci inondation yi à chaque année yi fay yi fay ñëw avec des solutions structurelles et définitives yoo xamante ne dina permettre euh, ñi dëkk foofu ñu mën a pare définitivement ci mbirum inondation beneen point bi moo di euh, fi nga xamante ni moo la ndax premier ministre ñëw na euh, visiter un peu euh, li nga xamante ni mooy les travaux d'assainissement de l'UGB premier ministre mu ni euh, priorité absolue la pour li nga xamante ni moo di gouvernement bu Sénégal ñu jël si ay jéego daanaka lépp en situation d'urgence la leen wax dañ ci taxaw ba nga xamante ne étudiants yi dootuñu amati benn problème li jëm ci jot ci ndox bi waaye itam ci assainissement bi premier ministre nag fii la jàngee jàngee na fii UGB pendant quatre ans mu jaar fii itam euh, waxtaan saafonteeg étudiants yi waxtaan ak ñoom ci mbiru immigration clandestine euh, ni leen itam euh, le pays ne peut pas se développer très tôt aujourd'hui fii nii nga xamante ni moo di euh, Saint-Louis en attendant dans l'après-midi certainement dina dellu si waat ak yeneen information sur la page du du premier ministre Ousmane Sonko waaye itam sur la page de